ok ati génn leen génn leen am na vraiment donc c'est c'est très facile ah, c'est trop facile ah, non c'est pas la première fois semaine passée da nga commencé xuloo si te intervenir bàyyi xuloo bi ak lu mënti xew yéen a ngi leen wax ji jox leen nit ñi cër Babacar ak lu mënti xew jox leen ñi cër jox ñi cër nit ñi dañ moo tax ñu taxaw fii hey hey hey c'est nul de votre part yéen ñëpp la c'est nul àll ngeen nekk dama ne la c'est nul àll ngeen nekk war a jàppalante mais la vous non daal mu yéen bro unless you cry, you say they play as you. Because of you are not playing today. You kick me last time here. You see? Say sorry is man. No, racketal fele. Racketal fele lagat. Pas mal, pas mal, aja. Hello. Voilà, mbay, play play play press press press press aca press ok ok bien joué Moussa bien joué aca aca Diop da nga koy jàppale de da nga koy jàppale bien joué petit bien joué petit àggal takk takk àggale takk àggale takk àggale yes baby waaw baal ma nga féetee ginnaaw nu mu la fekkee rek da ngay dóor del def boo defee action yi boo demee ba mu leer ne bu fekke am nga ko ok defal mais bu fekkee amoo ko des fois comme par exemple da ngay may dugg yow li ngay njëkk xalaat rek mooy naa dóor moo tax des fois gis da ngay dóor mu naaw parce que xam tax doo nekk souvent position pour dóor yow boo duutee rek dóor souvent bu baaxee defal bu baaxul utal joueur nekkal buteur ak passeur mais boo joué fi mu toll ni match ba mu jeex boo dogalu doo doon passé parce que bokk say sa kii mais da ko dee ko liggéey dee kamaan li gënoon jafe bi ngay soog a ñëw léegi yaa ngi koy réussir mooy devant les buts am na moment da ngaa ci kanam bu dee bi da doon tante ay affaire muy muy muy bloqué mu da daan jël bal bi di bëgg dut mu bañ ngay yóo mais léegi yaa ngi koy réussir macha allah nuñ la passé bal nu mu ñëwee nga contrôle ko lu gën a jafe yaa ngi koy def yaa ngi am jàkkaarloog défenseur bi dee xam la dóor bi moom balaa nga koy def rek ne la wóor ne la mais tey bu man boo dee défenseur la mu leer ma ne mbay bu éliminé keneen su ma dee joué libéraux damay couvrir rek boo éliminé rek ma ñëw taxaw sa kanam te xam naa da ngay dóor. dóor bi gën a bi gën a dangereux mooy ki nga xam ne xam nga foo koy xaar tey mu accéléré suba mu paas bii mu duut kooku doo xam foo koy nag yaa ngi dégg devant les Ouais, Lamine Gaye, hein, ancien footballeur professionnel, ici à Dubaï depuis 17 ans. Donc, en quelque sorte, je ngi euh, né avec mon boy, parce qu'en général, ce sont tous des footballeurs. Ils sont fait pour euh, autre équipe. Donc, euh, je a suis avec moi souvent des, des équipes des matchs ci Nous exerçons pour pouvoir euh, mettre en forme, pour pouvoir euh, avoir quelque chose dans les jambes parce que nekkaay bi fii Dubaï en tant que footballeur dafa a jafe c'est pas facile dañuy ñëw fii bon ils font pratiquement une trentaine de joueurs yu fi nekk donc ils n'ont pas ils n'ont pas la chance de de d'avoir des essais ci club yi donc pour les maintenir pour ñu am dara dans les jambes donc chaque semaine j'organise des matchs pour ñu ñëw jouer avoir quelque chose dans les jambes pour bon aussi occasion la pour man en tant qu'ancien footballeur de rectifier certains joueurs ma gis seen qualité yokk leen ci lu ñu manqué aussi ma rectifier leen pour au moins euh, bés bu leen yàlla mayee ñu am place pour def des essais que ñu bañ a am problème boobu. parce que comme yàlla may na maa ngi fi joué fi ba xam ex euh, exigence su championnat bi dëkk bi donc xam naa li ñuy laaj ak lu ñu dul laaj donc c' est une occasion pour leur dire pour les mettre sur pied aussi que nii pour nga foofu ci championnat bi il faut nga am qualité yi il faut ngay def nii il faut ngay defee nii. Donc c'est toujours ça quoi. Donc aujourd'hui on a joué un match contre une, une sélection composée de locales, euh, nigériens, afghans. Et on a gagné pratiquement 8 à, 8 à 4. Donc euh, l'important c'était de jouer, c'est d'avoir, comme je le dirais de début, avoir quelque chose dans les jambes. Et ce qu'on a fait, actuellement, le climat fait très chaud. Donc on a fait une, une de temps you, you intense, you bar. Et donc euh, gagnant avec les jambes quoi. Voilà. Ah. Euh, ñuy donc euh, on a fa dañoo benn groupe WhatsApp donc euh, booy fi nekk yëpp pratiquement dañu jël seen numéro mu créé benn groupe WhatsApp donc tey bu fekkee man maay def les démarches pour avoir les matchs comme bon on a une dañoo am benn groupe boo xam ne vraiment groupe de qualité que tout le a reconnu au niveau des Émirats que ni vraiment boy yi sont de qualité donc pratiquement équipe yi bëgg jouer yi nga xam ne dañu bëgg match bu intense dañ may contacter. pour avoir un match. Donc euh, le match def moi confirmer le match et double groupe on a un match telle heure, tel jour comme sa boy ñeu. Donc souvent tu peux avoir tout le monde, souvent souvent da ngay def une sélection de 10 à 12 joueurs. Comme taille, on avait terrain c'est 9 contre 9 donc on avait que 12 joueurs. Mais les vendredis, comme c'est entre nous, donc on a deux groupes de 11, grands contre petits, mais intense quoi. Donc en général, c'est comme ça ça se connaît les matchs. Nous, nous contacter de gauche pour avoir match euh, contre nous. Donc, euh, chaque semaine, on a deux ou trois matchs par semaine. Ouais. bon, location, comme on se dit, hein, donc, euh, ñaari nous avons équipe. cotisé. Chaque, euh, chaque personne, chaque euh, équipe a la moitié. Bon, nous, nous, nous colo souvent. Donc, euh, euh, nous avons Donc, c'est ce que Donc, pour man euh, li ma leen mën a defal c'est ça quoi c'est ça mooy di leen organiser la match ñuy jouer pour am ci dara terrain bi souvent je viens je paye souvent ñoom ñu dajale bon yaa fi comme tu le sais y a des gosses qui fi nekk comme takk jóg euh, yenn grand yi gelwaar yëpp dañu dem dañu dem tabaski ji ñoom it dañ ci jàpp vraiment ñëw ku ci ne cotiser souvent on arrive même à avoir plus que li ñuy demandé ci terrain bi c'est juste pour faire plaisir aux petits parce que ñoom it demeewul noonu c'est un peu compliqué c'est un peu difficile ils sont venus dans un pays boo xam ni xamuñu fi kenn te Dubaï day dëkk boo xam ne vraiment nekk fi dafa métti parce que tu t'entretiens toi-même c'est pas comme ak par exemple en Europe da ngay dem egg si ñu jël dugal la ci kër di la tette ba nga ba nga mënal sa bopp fii c'est pas ça da ngay ñëw yaay def sa bopp sa lekk sa hébergement et tout sa visa bu jeexee yaa koy defar donc bu fekkee liggéeyoo bu fekkee amoo club du yomb tey ji boo ci bëgg a dajale naan ko aussi kay cotiser pour football c'est pas facile donc on a un groupe surtout certains grands yi fi nekk di liggéey suñu ñëwee match ku ci ne mooy joxe ñu quelque taxale fay terrain bi ñu jouer mais c'est c'est un plaisir de le de le faire pour c'est une façon de les de les soutenir jàppale bi loolu lañ ci parce que mënuñu jàpp ñëpp ne leen kaa leen ci équipe mais par contre mën nañ leen may euh, fu ñu exercer mooy fay terrain bi ñoom ñu ñoo jouer voilà plaisir boobu lañ ci am quoi. des ci biir marché bi comme ni nga ko gisee sànq neer yi dina tàng. Mhm. gars yi dañuy xawal tàng yëngatu xuloo xeex du ci ñàkk. Mhm. naka ngeen di régler problème yu mel noonu parce que mënul ñàkk aussi c'est la vie. non mënut a loolu moom mënut a ñàkk quoi souvent bon ak période bi fi dëkk bi tàngee euh, ça nous arrive souvent entre nous ñuy jàppalante jàppante mais d'une part euh, boo dee yaay mag da nga parce que je te dis ku nekk da nga jógee ci nekk ñëw bokku ñu fu ñu yaroo bokkuñu gis-gis bokkuñu mentalité donc souvent man sama rôle loolu la quoi en tant que grand frère mooy. di leen euh, régulariser bu ñu bu amee genre coow yooyu nga revenir leen sur terre sans pour autant aussi bon di jéem a ne diw yow la wala kii mais quand après man damay jël ku ci nekk euh, de côté wax ak yow li man wax ak yow donc benn mot door laa am mooy xool leen ci man parce que je suis votre grand frère donc comme jox naa leen cër jox leen ma ko mais du ci ñàkk man je bon man je l'ai dit souvent man ngeen xuloo man ngeen jotante mais li solo mooy boo pare viens t'excuser devant tout le monde que li fi amoon sànq maa ngi ciy après on passe chose parce que ñun ñëpp ay lañ ñëpp mer ñëpp mer donc. Euh, waxtaanu tay bi day yem juste ci match tay bi mais xam naa dañuy gën a waxtaan. Mhm. avant projecteurs yi fay dèjà ma ngi fay. est ce lu ñaan rek mën nga concilier ñoom ñaar ñëpp non mais ça ça c'est déjà fait parce que ay euh, ñoom ñooy ànd ñooy ànd c'est une chose boo xam ne. est-ce que mën nga ko def parce que image bi day wër. est-ce que mën nga ñoom ñaar. non ils vont ils vont comme je te dis parce que c'est une obligation. Mhm. parce que ñoom ñaar vendredi prochain ñooy ñooy bokkaat équipe. donc c'est une obligation de le faire man du ma ñu ñu ñu donc man je te dis mon rôle c'est ça c'est c'est de les rassembler parce que su ma fa mënul lool en tant que grand frère donc ma présence n'a pas sa raison donc man sama rôle mooy di leen di leen di leen delloowaat dañu xuloo tey suba dañ dañuy jubawaat demain mën nga ñëwaat fekkowaat beneen après dañuy jubawaat parce que comme comme on te l'a dit tout à l'heure c'est pas la première fois yàgg na fi am donc ña groupe bee toog am na ñaañ ci doon xuloo la dernière fois ñu ngi ne toog di waxtaan mais donc l'essentiel que mooy euh, man damay damay wax euh, thanks God mooy euh, jox nañ ma cër boobu quoi tey jii ku ma ci tiim di la saaga ku ma ci tiim di la malgré que mosuma ko def mais damay tiim di leen yuuxu di leen gëdd mais dañ may déglu bu ñu paree maa ngi jégalu grand lañ may wax donc euh, c'est c'est une chose boo xam ne cër boobu may nañ ma ko quoi voilà donc euh, ça va se faire dañuy juboo dañuy àndaat waaw ñooy bokkaat benn oto dem ñibbi vendredi ñoom ñooy bokkaat oto ñëw football soit voilà. demee noonu quoi xam nga là on est man bon peut-être je suis avec ma famille ici je suis ma femme ma ma ñoom kenn nekkuñu fekk yaay nekkuñu fekk papa donc ki nga fi nekkal mooy sa mbokk. ki nga fi nekkal moo si mbokk parce que ñoom ñooy bokk benn néeg bu ñuy bu ñuy fanaan donc leur vrai parent mooy ñi fi nekk donc ils sont obligés d'être ensemble voilà donc moo tax man en tant que grand frère tout ce que j'ai tout ce que je peux mooy c'est de les rassembler comme ça waaw en famille kenn raxuñu on tous des Sénégalais malgré que la vie n'est pas tellement euh, facile mais bon euh, àll lañ nekk donc àll li fi mën a dox mooy jàppalante suñu biir et c'est ce qu'on est en train faire quoi moom voilà moom mooy mooy mooy mooy coach gars donc moom mën na la wax pratiquement ci match yi quoi. waaw salaamaaleykum euh, maa ngi tudd El Hadj Babacar Mbodj jóge Sénégal nekk coach licence DCAF euh, bon maa ngi Dubaï ça doit faire plus d'un an d'un an et demi. et voilà ñu ngi nii ci football bi di di jàpp rek di góorgóorlu waaw. ok. waaw je pense bien waaw. bon d' abord bi xam nga dafa xaw a métti yi fii hyper xam nga dafay xaw a physiquement dafay impacté ci match yi quoi mais bon c' est c' est c' bon pour pour ay genre match je réduit la entraînement la. dafay permettre euh, techniquement booy gën a gën a liggéey ci terrain bi ah gën a familiariser wu ci tactique bi aussi xam nan nga war a déplacer woo yooyu ci ci ci biir match yi et daf ñuy dimbali parce que fii c'est c'est un peu difficile par rapport ak Sénégal nga xam ne terrain yi c'est abordable mun nga mun nga dem football foo bëgg fii c'est un peu difficile parce que terrain yi boo ci joué da ngay fay wala ñu invité la mais daf ñuy dimbali daf ñuy dimbali surtout que instant yi ñu ngi ci période période mercato bi quoi. Euh, bon match bi moom gagné nañ huit euh, huit deux je pense xaw ma huit quatre euh, score bi amul importance li am importance mooy contenu contenu match bi parce que ñi ñuy joué am nañ talent mais booy tamit fi yàlla def na macha allah am nañ talent li ci des mooy gën a liggéey rek pour am opportunité ci club bi loolu laa ci xalaat waaw. c'est hyper important hyper important parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ déjà on est une famille. man am na ñoo xamante ne nii fii laa leen xamee sérieusement match yi moo tax ma xamante ak ñoom ñenn ñi samay jeune frère lañ ñeneen ñi ñoo maase am naa ci ay grand frère mais familiarité bi am na solo trop parce que am na ñoo xamante ne on s'était même perdu de vue fii lañ dajawaat disantewaat et c'est une très bon chose parce que mi ngi ñuy dimbali ñu gën a xamante ah gën a dimbalante tamit ci kenn ku nekk li la fiy tax a ñëw parce que ñu ñëpp je pense sport bi moo ñu fi indi football bi. te ñi ngi ci ñi ngi ci jàppalante bu baax a baax waaw waaw di ñaan rek nag yàlla def ci jàmm ah. yàlla dimbali ñëpp kenn ku ne li nekk sa xol yàlla mottali la ko yàlla taxawu parce que ñëpp njaboot moo leen fi bàyyi rek xam nga Sénégal neex na trop waaye metti na fii tamit metti na mais sant yàlla di moment que ne yàlla mi ngi may fekkee ak tal ak la ci liñ ñu bëgg waaw merci encore merci à vous euh, El Hadj Babacar Mbodj Keita coach euh, football licence DCAF. waaw c'est Mamadou Mamadou Niang laa tudd ça fait pas mal de temps ñu ngi Dubaï bon on va parler peu du match gars yi moom xamante nañu suñu biir daanaka ku ci nekk ma naa classé donc c'était pas c'était pas mal rencontre bi ak euh, équipe adverse bi neexoon na trop gars yi nañu. 100 pour donc nii lay demee saa su chaque weekend am nañ match donc voilà quoi ak suñu coach Grand Lamine ak gars aussi yëpp macha allah ñu ngi ci forme donc ça va quoi. parfois match yi grand bi da doy sélection ñoo joué xam nga waaw effectif bi dafa bari quoi donc du question ni day tànn ay meilleurs mais ñu ñëpp mën a fubal c'est-à-dire que match di fubal mooy bari day jël moitié bi ñuy fubal xam nga nekk xam deux jours trois jours après mu ngi daal benn capitaine ay mhm. ñun moom yàgg nañu fubalee nii waaw franchement quoi lii du tey doon nañu koy fubalee donc li ñu gën a bi jàngale la ñuy bi quoi chaque jour donc voilà quoi ah. naar yi yëngatu yëngatu mënuñu dara mënuñu ci ñun dara donc bë bëri bu keeg mbaam la rek waaw bu mu yàgg-yàgg da leen koy def donc mooy loolu waaw. waaw joué nañu match bu neex comme comme match yëpp yu ñuy joué match sélection yi am fii di ko joué. voilà chaque match nii lañ koy joué et puis voilà joué nañu am nañu ay joueurs yu baax ay boo yu fi nekk yu baax yu talentueux donc euh, voilà joué nañu lancement bi waaw. par rapport ak relation yi ñoo xam ne peut-être yàgg yàgg ngeen yàgg ngeen nekk ci beneen milieu nga tey ci beneen réew nan lay waaw dina nga dina dina sentir différence bi voilà différence bi dina am et parce que voilà xam nga football moom. kenn moom ko aussi de plus voilà y a des y a de la qualité ici ñeneen ñu ñu joué ñu mënuñoo jaaxal parce que ñun sénégalais xam nga dafa am don donc du coup yeneen nationalité yi moom suñu joué ak ñoom du du metti quoi mais bon ñoom aussi ay joueurs de qualité lañ mais ñun moom ñoo leen mën daal. par rapport ak trop chaud même fii moom super chaud ñu ngi bëgg dee ak tàngaay tàng na trop tàng na moom tàng na tàngaay moom c'est extra mais bon on di. de s'adapter quoi c'est comme ça. non euh, gën ma xamee Pogba waaw Pogba lañ may ooyee ñëpp fu ma tourné moom lañ ma ooyee tamit aussi tey moom joué nañ match bu am qualité joué nañ match bu baax quoi waaw waaw match bu aussi waaw. waaw waaw contre attaque yi dañuy bu ñuy def contre attaque dañuy dal rek dal am patience def ndànk. def ay tiki takk def finition bi mu jeex quoi. na gars yi di bàyyi xel rek jour yi nekk Dubaï parce que am na ay jeunes talent yu yu nekk fii pour équipe nationale Sénégal yi bàyyi fii xel quoi parce que am na ay boy yu am talent yu fi nekk quoi yu am avenir aussi te waaw. match moom vraiment neex na parce que gars yi moom sénégalais yi moom dañuy dañuy joué moom vraiment ku leen xam-xam ne dañuy dañuy football xam nga dañuy jàpp équipe fii di leen bëgg allah xam nga mais problème mooy fii fii dafa tàng. Dubaï dafa tàng température bi day dem ba 47 degré mais vraiment match yu neex lañu ñu joué match yu neex la ñu joué quoi. par rapport ak taxawaayu coach bi moom macha allah quoi man dama koy apprécier bu baax parce que grand bu cool la xam tamit jaar na fu ne am na expérience xam nga international la fu mu football ñun ñëpp footballuñ fi vraiment kon bu ñuy coach ñun dañ koy déglu xam nga mu def si ñu xam-xam parce que boobu ba léegi ba ñëwee fii ba léegi mu ngi taxaw xam def ñun encadrement problème bi ñu am mu taxaw ci waaw loolu lépp daal ñu ko ci sant bu baax baax baax. des fois bu neer yi tàngee moom mooy loolu quoi loolu kese loolu mais ba ma paree jégalu naa équipe bi jégalu gars yi xam fois moom mooy loolu neer yi bu tàngee mënoo contrôler sa bopp parce que ça c'est pas professionnel mën naa ko lijjantee autrement mais maa ngi jégalu ñëpp. Euh, ni coach waaw waaw waaw loolu sama m'a permis de revenir encore sama m'a permis de revenir parce que may na ma ba ma ñëwee. xam naa li may def parce que boo duggee di nga ànd ak benn fug xam nga bëgg kut ko kut gagné yu demee noonu mais li mu def daf may jàngal tamit àdduna chaque jour chaque jour daf may jàngal àdduna parce que chaque euh, jour du chaque jour la ñuy tëggal ay match ay comme kii ak man ñun ñi am club ñi nga xamante ni am nañu club ñun chaque weekend mën nañ dem entraîner ji vendredi ñuy ñëw tase ñun Sénégalais yi football li mu def d' accord naa ci parce que c'est un ancien international man d'après li ma gis bu ñuy football ak sénégalais yi niveau bi des na par rapport ak ñun parce que ku xam sénégalais xam ni football rek lay def ñun des fois mën naa ñëw football ñu dóor équipe 11 la semaine passée équipe bi on les a battu 11 il dit que ce sont les meilleurs mais ñun mënuñ ñu jaaxal quoi lu ñu aay aay mënuñ ñu jaaxal waaw ñun car macha allah daal. Euh, ñu am pour wax ko seen autorités yi suñu autorité sénégalaises yi c'est que juste lenn la kese. tey footballeur bi fu mu dem bu ñu nee bu ñu laajee ñun fan lañ dëkk comme ñun exemple bu ñu leen nee footballeur lañu du ñu xam mais ku ci ne Sadio Mané El Hadj Diouf ñoom loolu lañ ñuy wax kon dañu war a respecter footballeur yi ñu xam ni footballeur yi ñoom ñooy porter le drapeau national. porter du wax nii rek footballeur yi tey tey même yow te gis nga ko dañ dugg benn boutique suñu waxee suñu président kenn du ko xam mais bu ñu nee footballeur yi dañ day xam automatiquement El Hadj Diouf kon gars yi war a bàyyi xel footballeur yi. di xool est-ce que footballeurs yi ñu ngi ci bonne condition di ñu boole ci lépp ci yëpp lépp mais gars yi duñu boole ci lépp dañ jàpp ne ñun footballeur lañ footballeur lañ anyway dañuy bàyyi mooy loolu parce que tey am na ay footballeur yu nekk ba Ajman ñi ñu ngi Abu Dhabi ñi ñu ngi Dubaï ki ngay gis ni ancien international la football na équipe nationale mooy loolu xam nga gaa yi war nañ ko mën a bàyyi xel même ambassade bi war na ko mën a woo di ko laaj ay conseils si booy bi nu muy demee parce que loolu da baax parce que moom nekk na ci milieu bi ak ñun je pense que gars yi war nañ ko mën a woo di ko laaj booy nii ak nii ci yan situation la nekk si lii ak lii man ci loolu laa gën a yaakaar. surtout ça moom moom bu leen ko diggee war a nañ fa mën a gis seen bopp mais ñun duñu gis suñu bopp duñu gis suñu suñu bopp des fois am am nañ représentant yi bu leen laajee dañ naan la si wàllu football grand Lamine Gueye lañ lay wax après grand Lamine Gueye duñ ko woo sax si yenn yi des nga am fi problème moom mooy jël ambassade moo ko war a def moom mooy tàmpatam ndax gis nga à la preuve en est que woo ma 6 heures du matin pour que lijjanti ay situation